waaye dañ faa toog ab diir sëñ gaawaan ni borom daaru man mënutuma muy sama mag ju baax ja maa ngi dellu daal di dawee ca daara ja fekki borom tubaa moom sëñ gaawaan dafa teel a takk sëñ tubaa bëgg ko lool ci ak rawam sëñ tubaa itam féetewoo ko booba dara xewagul seen baay fi nekk nga xam ne sëñ bi taxawul taxawalul dara waaye ràññee gi nga xam ni sëñ tubaa teel na koo ràññee ni sëñ gaawaat mi ku ko takk la ku ko bëgg la te loolu ku am nga ak njaboot sax da nga ko ci xam ñaar ñoo xam ne rek dañuy teel a féete ba am bis sëñ Mbàkke Mor Anta Sali di jiite ak julli farata njabootam gu tedd gépp nekk ci ginnaawam ak taalibeem booba maam Cheikh Anta ngi dend ak sëñ tubaa ci sàppe si bi ñu jullee ba sëñ Mor Anta Sali sëlmal ñi doon julli ñëpp ni asalaamaaleykum bi sëñ tubaa geesoo ci mu di ko ana kooku mu ne ko mën a seex mu ne ko seex de yow faj naa sa aajo bi arfa asawtin ca kaw la ko ko wax moo tax borom gaawaan daana wax ni man de bi ma sëñ Tuubaa di ma wax faj naa sa booba xaw ma luy ajo booba aw ma aajo xaw ma aajo yàllaa ko teel a dimbali ci bëgg sëñ Tuubaa ak taq sëñ tubaa te xam ngeen ni mbëggeel lu am solo la genn buum ko gën a dëgër buumu cofeel amul sëriñ Tuubaa nee na doomu aadama nga may ko adduna may ko suuf si ba mu fees dell ak wurus may ko li mu bëgg ku gënal ndax ku amul li nga bëgg loo am da nga ko def ci li nga bëgg ba li nga ba am ko mbaa mbaa la nga am jeex waaye ci la nga bëgg nga koy moom nag dañ ko teel a wut sëgale bëgg sëñ Tuubaa moom sañ Gaawaan mu ma kenn bi ñuy jébbalu bi sëñ Tuubaa tas daaraam joojee di wax ni maa ngi woote ci buntu tërbiya ak jébbalu ak jaayante boo fekk na nam murit di mel rek booba sëñ gaawaan mel na ko ci sëñ Touba bi seen bàyyi nelawee ama sachin bopp atum sachin junni ak ñetti séeméer di fukki ati sëñ gaawaan ak juróom di fanwe ati borom Touba sëñ Fallou Mbàkke daana wax ni maam jaara day xar baax waaye soxna Anta baax maam Anta Ndiaye mi nga xam ni moo jëkk ci kër ga ña ñëwoon ñëpp di ay doomam sëñ gaawaan baayam mooy ndijaayi lenqeen ndax sëñ moor mi ko jur ak soxna Anta Ndiaye yaayam seen ñaari baay ñoo bokk baay ña ñëwaat muy soxna jaara ak soxna Fayet Isa ay doomi soxna Anta Ndiaye Mbàkke lañu seen ndey la bokkal ndey la bokkal baay soxna Anta Ndiaye di kilifa ñëfa ñëw ñëpp moo leen fa indi boot leen taxawu leen war leen aw yoon fàkk kër ga te fàkk ko ci lu baax ñooña fekk si ko fi bi cërub yàlla bi dikkee tab bi soxna jaara muy xa Cheikh Ahmad Bamba soxna sa Anta Ndiaye Mbàkke ànd ci xal bu xol bu sell xol bu rafet nangul yàlla dogal bi seen bàyyi nelawee moo fab sëñ gaawaan ba wax ko sëñ Tuubaa ni ko seex mu ne ko Mbàkke mu ne ko sama jii di Ahmadou Mbàkke bul ko def nawle bul ko def doomi baay bul ko def mbokk seex rikk sama jii def ko muy sa wasila def ko sa kerkeraan sa diggante ak sa borom ndax fekk naa sa baay di ko dénk boppam te sa baay fóore la aalim la aarif la bu saqaf la doy na ñëpp te mi ngi dénk boppam sama gii rikki seex sama gi bu la ci kenn jëkk daal di koy ba sañ tubaa sëñ gaawaan daal di laxasaayu topp sëñ tubaa lu ne dégg na ko ci ci ak rawam sëñ gaawaan négul ay léewéen ji dem ba xamatoo foo jëm daal da ba xam ni rek la yàlla dogal déedéet moom dafa teel a nangu sëñ ndeyam ju baax ja jàppale ko ci loolu nangu loolu waaye sëñ tubaa moo romantique damay wax ni sëñ tubaa moo xam nu ñu jëfe lu baax xam na ni bu seex jëkkee seex rek kenn ku ne sam xel dana dal ndax seex ay mbokkum ñëpp te ndeyam a fi jëkk sëñ Mbàkke Anta mi nga xam ne mooy magi sëñ gaawaan moo jëkk mooy taawub sëñ Mbàkke Mor Sëli dafa teel dem soxna ja Ture mam moom la sëñ tubaa jëkk jël sëñ tubaa daal xamoon na ne seex lay jëkk a sédd te da ko sédd cër boo xam ne bii benn cër du ñu toll benn cër du ñu mel seex ca cër yu jëkkee la ko sëñ tubaa sédd mus sa teqli moom benn yoon am na jamono joo xam ne ji mooy santu sëñ tubaa am naa war lay sol laxasaa yu ba dëgër këng sëñ tubaa war aw fas di ko dàq bu baax sëñ gaawaan di daw topp ci moom bu demee ba sëñ bi nar koo raw mu jàpp ci geenu fasu sëñ bi fas yu di ko diri waalee bu sonnee sëñ bi may ko mu noppalu tuuti am soxna su leen séen mu mel ni sëñ bi da koy torturer ci noonu mu mel te sëñ gaawaan na ko yàlla binde sëñ Ibra Sàmb daana wax ni xalima nga yàlla bindoon maam Cheikh Anta da koo bind ba noppi damm ko bindaatu ci keneen deux mètres deux centimètres la taxawaayu tolloon mu mel ni naaru faas xees pecc benn yax la woon bayreem boobu da koo judduwaale bi muy tuuti toll ci war fa subat bu àndoon ak téemi moroom ñoom seex rek la ñuy wax soxna si ne ko seex seex seex mu tàngamlu topp ci sëñ tubaa rek ci fas wi di daw sëñ tubaa di ko seex dafa mel ni am na ku lay woo demal wuy ji sëñ gaawaa daal di bàyyi sëñ Tuubaa ci xàll wi dem dajeeg soxna si mu ne ko see xanaa yow gisoo sa bopp ni nga mel ak nii la yàlla bindee see sama ji nga topp seen yaay ya nekkoon ca seen kër bàyyi nga di sànnantey wattu nga topp ci kawam di daw nii mel ni jaamam mel ni doxam nii xanaa seex gisoo ni nga mel xamaa xamoo sa bopp nee mun ko jaral na ma ko daal di ko fay wàcc dellu siwaat ci sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa di ko laaj ni ko seex ki la doon woo lu la doon doyee muy nakk nakal mu ko seex wax ma lim la doon doyee mu ne ko dafa wax ni damaa topp ci yow nii ni sab dof ni sab jaam xanaa gisuma nii ma mel ak nii ma yàlla binde te su ñaari ndey nekkoon sama kër bàyyi di sànnante waat ma topp ci yow mel ni sab jaam mu ne ko aha loo ko tontu mu ne ko dama ko ne jaral na ma ko sëñ ko seex mbaa loolu nga ko tontu mu ne ko lool laa ko tontu te xam nga ko mu ne ko seex soo ko waxoon dara lu jaral ma ko fii la ñuy tàggoo ma ak nga dem ma de seex mag lu muy def nag ko jaral waaye loolu mooy yoon wi lépp loo xam ne lii képp koo xam ne kii la nekk ba nga cay nekk kenn réewu la kenn ba léewu la kenn ndokkuwu doo ci am doo baax doo ci jariñu loolu ñëpp a ko dégg sëñ Gaawaan ku njëkk a dégg ci sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa mas na ko ni seex te ngaa àndeek bokk yi ca bàyyi ma ndax bokk yi kat nee nañu nii dinaa la ko wàll te seex bokk yi nee nañu nii ma mel du aw melo te boo ma wëttuwul boo ma bàyyiwul nii ci lii ci man dinaa la ko wàll sëñ Gaawaan daal di jooy ni ko mbakkee man ànd ak yow te dem sawara moo ma gënal ànd ak bokk yi te dem àjjana du ma la ba sëñ Tuubaa ko laxasul mu dem ànd ak sëñ tubaa toppin wu rafet jeex ci sëñ tubaa tàkk keroog bi sëñ tubaa jéb eh, sa jóge mbakke baari mbakke joor eh, eh, daaru kajoor di ñëw fii ci dëkk bii di mbakke bawol sëñ gaawaan la àndal ba mu jóge mbakke bawol gàddaay bokk yëpp sañ ci dëkk bii di daaru salaam fii mu waxe woon ni ahmin bi daaril fata tuubaali baskanihi daaru salaami kama bil makka wal madina sëñ gaawaan la àndal bi mu fi jógee ama hasashin dugg ci àllu mbaafaar bii di wër tuubaa ñépp di ko wër keroo ba sëñ tubaa yemee sëñ gaawaat yemee ci moom mbubbam la summi def kollub kese lalal ko sëñ tubaa dañoo yàgg yàllaa leen boole ci cosaan waaye mu teel a taxu taf tafu ci sëñ tubaa bi mu demee ci géej gi ba ko fa sëñ séraloo fekkee ba fa sëñ mëtuloo dagana fekkee ba mu ko nuyoo su jóot ca jëmba lu yàgg yàgg yàgg yàgg ba mu siggee rek ana seex rek la ko jëkk a wax ana seex tee ko fa juróom benn weer ko boo demee wol ma seex moom ndikkee sëñ gaawaan taxañu fekki sëñ tubaa ci géej gi dellu si sëriñ tubaa gii ñëpp war nañ koo sante maam Cheikh Anta la tax mu dellu si moo ko ko wax ndax sëñ tubaa ba mu demee ba gis kenn foo xam ne fii kenn nekk ko gudul yàlla ak moom ak malayka yi ak raqib ak atiit dafa waxoon ne dama faa bëgg fa sax di fa jaamu yàlla ba li ma yàlla dogal ci àdduna mu jeex ndax fii kenn du ma géré dérangé kenn du ma gêné kenn du ma sujootal kenn du ma tëj kenn du ma tijji dans les îles fantômes du Lagué fa la ko fekk ca biir la Mayomba sëñ gaawaan di sërëx sërëx di yendu di fanaan ci àll bi lu ne mu def ko ba gis borom tubaa xaadimu rasuul ba mu ko gisee sëñ tubaa dam mel kenn mun la koo misaal ci jeex takk ndax ñàkk lekk ak ñàkk naan ñàkk nelaw ak godd yi ci yaramam ak matat yi ci yaram ak kutt yi ci yaramam ak kawaram gi ni mu sëqee ak bii ab bi ko wër environnement bi ko wër muy barab boo xam ne bii barab bu hostile la kenn waru faa mën a dund sëñ tubaa nekk fa di jàng alxuraan ba sëñ gaawaan déggee kàddu sëñ tubaa gi rek dafa daal di tey tëj dañ bunt bi rek fekk ko ci biir daal di koy laxasu jooy jooy yu metti sëñ tubaa di ko seex mu ne ko mbàkke mu ne ko ana lii lu ko waral mu ne ko mbàkke da ngaa sori te da ngaa wéet mbàkke lii lu doon mu ne ko seex da nga maa fekk ci sama jàmm seex fii laa wane sama borom ni ko góor guy takk tubay maa la man seex defal naa fi yàlla loo xam ni gën góor doodu ko defal seex barab bi maa fi jëkk maa fi jëkk jàng alxuraan maa fi tudd yàlla sama borom bëggatuma fee jóg sax sëñ gaawaan joojoo yu metti ni ko mbakke fii boo fi saxee ba yàlla dogalal la li mu dogal ci yow ci adduna nga bàyyi koo fii fekk sa wujj ta borom yow da yaay xam fa nga jëm waaye fa nga bàyyi koo ku fa deeti sawara la jëm sëñ gaawaan a wax loolu sëñ Tuubaa ni ko boo jaaree fii wuy ji sa boroom yow réew ma nga bàyyi ko woon ñëpp sawara la ñuy dem mu ne ko lu leen di yóbbu sawara mu ne ko dañ lay weddi ab tubaab bu sa jàpp jàpp ko dellu këram exil a toujours été égal à euh, exécution pure et simple exil égal pure exécution pure ku ñu ma sa jàpp rek fa la sa fa la lépp du bi géej tubaab yi jàpp la nga doxee fi faatu dañuy defee di yàgg ñëpp a yem te ku la yemale kenn dem sawara mbàkke dellul te ba ma fii man julli gu néew laa fiy julli diir bu gàtt laa fiy sax faatu ndox fi yow rek yaa fi mën a dund te yow nga dellu te man nga bàyyi ma fii kon ma ngay tayle boppam sëñ tubaa di ko seex ma laaj ko sama borom ma laaj ko sama borom nag dootoo ko dégg moo tax ku ne yaay sañ tubaa dañ lay nax ma laaj ko sama borom sëñ Bamba rek ko daa wax seex ma laaj ko sama borom daal ni gàyyi kaabiru alxuraan daal di dal ci laay innama masalu xayaati dunya kama in ansalnaahu min asama dal ci laay innama masalu xayaati dunya kama in ansalnaahu min asamaai faxtalata bihi nabatul ardi ma yakulu naasu wa laxna amu xata ida axasat ardu zuxrufuha wa zayanat wa zanna ahluha annahum xaadiruna alayha fa jaaxal naaxaa xasidan ka an lam tax na bil am si inna kazalika nufassilu ayaati li qawmin yatafakkarun wallahu yadduhu ila daari salaam wa yahdi man yashaa ila siraatin mustaqim sëñ Tuubaa ni ko seex mu ne ko mbàkke mu ne ko lii nga ma wax la ma yàlla digal seex mu ne ko mbàkke mu ne ko dinaa sàkku ci sama borom dellu daaru salaam ak Tuubaa ndax yàlla musal leen ci sawara ijaar rujuhi ila xawmi saadatana wal takfina yawma jamhil xaqi niiraana bisub tey bii moo nu tee dàbbi sawara di si sawar bari na doole lool sëñ Tuubaa da ko digaloon amama si sin ca njaareem ni mooy bis ma fi jógee waaye sëñ gaawaan màggal gii mu màggal bu ñuy màggal ak dem dellu si gaa neex bu fa sëñ Tuubaa doon loon doxi tabbi lépp tabbi gi dellu siwaatul kon disu safar du saf dara ci noonu bu safar sëñ bee dellu si bu dellu sul safar du saf dara barki borom Tuubaa dellu si gii rek a tax safar saf bu fekkonte ni fa la lépp doxi tabbi géej sëñ Tuubaa dellu siwul kon disu safar lu muy saf màggal gii mooy taaw màggal yi màggal gii mooy màggal mbégteem dellu si Serigne Touba màggal gii mooy màggal échec bi France échec ci Serigne Touba mooy màggal victoire bi Serigne Touba am ci tubaab yi ci nit ku ñuul ak nit ku weex kenn ci kaw mbooloo jullit ci kaw yéefar màggal gaa ngi mooy màggalu sëñ gaawaan maam Cheikh Anta moo tax Serigne Touba fay na ko pay yoo xam ni. moom dong la sëñ Tuubaa noonu seex mu ne ko mbakkee mu ne ko may naa la loo xalaatati rek loo xalaatati sa ndigal defal naa la ko muy sa ndigal seex may naa la fu ma nekkati nga fekk ma fa seex may naa la sa xalaat nga wax ma ko seex may naa la foo nekkati muy àjjana naa la foo nekkati muy àjjana foo yendu muy àjjana foo fanaan muy àjjana seex defaa naa la defal naa la jannatan ilal jannati moo tax maam Seex Anta mooy borom saxaa def daari nii ma al kifaayati am ay himaa maam Seex Anta la sëñ Tuubaa doon seex man mii maay farata waaye seexay sunna moom dong la sëñ Tuubaa noonu seex yaay sama safaan yàgg borom saam ndax man lu ma gën a sonn lu ma gën a wéet lu ma gën a xiif gën a yegg ci yàlla yow seex loo gën a buuru loo gën a foytu sa bakkan loo gën a def lu a neex gën a jege yàlla sa borom moo tax sëñ Tuubaa wax ni dam mahawaaya li la si ajaada wa chakaral firasa wa sajaada nee na lépp lu waay am ci sab si rek may naa ko seex ca kaw lal ba koo koy sëñ mooy rakki sëñ Tuubaa ju ni rëkk ci moom monsieur su ko defee rek menn mbokk vers les années 1919 maam Cheikh Anta gënoon a riche garde-robe ci réew mi lam daan sol booba buur yi sax mënuñu koo sol moo gënoon a moo gënoon a riche garde-robe lam daan sol parc automobile bu varié ay auto de marque moo ko njëkk am maam Cheikh Anta moo doonoon jibay borom Touba te loolu kat kóolute gi ko sëñ Touba wóolu moo tax ndax ku ne xam na ni barke bu bari mën naa soppi ni dof mbaa yéefar waaye booba sëñ gaawaan dootu yàqu mukk dootu beew mukk ndax xol ba sëñ tubaa rek a nekk kooku nag moom la ñuy màggal nii sëñ tubaa noonu na ko ca xasaay leetaram bu gudd ba ci min ni ilaa murid yi sayidul muxtaar bu shaatun awsaltuha ilayhi min rabbihi taala noonu na ko seex dootoo lot seex fuxta kullal jiili raw nga samaas gépp moo tax daana wax ni man seex defante damaa neex ndax sëñ Bàmba kat nee na ku dugg ci sama yeel mu tàbbi ci yeelam te moom xajul ci yeeli kenn koo koy sell ak sëriñ Tuubaa yàlla noonu yàlla tas ci barkeem